dee leen gëstu ay information di sosal ay nit di fenal ay nit yéen Pape Abdou Cissé bu divorcé ak Marie-Louise ban njariñ la leen amal Marie-Louise jàppal ca sëy bi nga fonk ko xam ne sëy du alal du teraanga yëg-yëg la ak yitte def ci yitte ñi ngi sëy ñoom ñaar ba tey man Adama maa leen ko wax def naa samay investigation ma investigation trouvé naa loolu Marie-Louise ak kii nga xam ne nii moom mooy Pape Abdou Cissé seen sëy tasul tey tasul ëllëg dimanche dimanche bi jàll rek ñoo àndoon moom ak ñoom Cheikh Senghor ak yooyu dem seetaani match yaa ngi dégg dimanche bi jàll rek dama ne Pa Abdou Cissé ak mari louise ñi ngi sëy ba tey yàlla neen yàlla defal jàmm beneen bi ci tegu mooy dugal naa Moustapha Dramé daan ne Moustapha Dramé am na visa ci xaj yi maanaam ñi lay menacé ci wàllum saaga ndey ak ak ak ak wax ju ñaaw ci Sénégal xanaa xamu leen ne Amérique ambassade Amérique ak ki nga xam moom mooy Amérique du kii Amérique ak Canada du ñu baale loolu maanaam boo dee menacé nit di ko saaga di ko toroxal bu déposé visa ci kàddu yooyu ak jëf jooju dañ koy may visa Cheikh Ahmed Cissé mii ngeen di gis ci la amee visa dem Amérique day toog dañuy jël kayit yi dugal ko immigration bu ñu yeggee jox leen green pass green pass am lay xaar noonu Cheikh Ahmed Cissé Moustapha Dramé loolu la def ñu jox ko visa Canada jox ko visa Amérique li ma wax ma ci am preuve mu leer ma nañ nag ma toog di ko wax moo tax jot na nag ngeen nangu ñu saaga seen ndey jiñ leen xaj jiñ leen dëmm mbécc seen ndey ndax ngeen dem ambassade bu Amérique ak ambassade bu Canada ñu may leen visa looloo gën a yomb si visa nangu leen ñuy saaga seen ndey ak di leen xas ak di leen menacer parce que li leen wax dafa leer naññ man du ma waxantu beneen bi ci tegu mooy boos ak ummi ubbi nañ bitig maa ngi ñëw live bitig bi xanaa bitigu askan wi leen koy tudde parce que xaalisu askan wi leen ubbee bitig dóor askan bi ubbi bitig ñooy bandi kon bitigu askan bi am na dinañ ci def live incha allah ba ci kanam maa ngi ñëw ci live bi gars yi na ñëpp am jàmm jër ngeen jëf